na nga kontaan booy lan mooy sa coow préféré sa plat préféré. sama plat préféré. ah xam ne boo duggee gaale rek fii di xeeñ neex nga kontaan mboroxe la mooy sa mooy sa plat. boo yoole nga sa bopp gars yi xam nañu mboroxe mooy sa plat préféré. moom laa gën a bëgg avant tout may nuyu Omar Ndiaye surprise. ma lay sant surprise waaw surprise mbër. surprise mbër ba gaañ ci tànk. sama sama sama lépp maa moom ñoo bokk fanaan ñoo bokk lépp lu ne moom Baye Thiam kooku ma koy sant aw ma fay bu baax a baax jaral naa ko lu ne Baye Thiam ma koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàlla bëri si dëgg aw ma fay ñu déggee waat kon ñu ma la doon wax rek ñu ma déggoon waa Seras comme ni loolu da ngay bàyyi ba ci fin bi. bàyyi ba ñëw ci fin bi. mais il faut nga sant leen. dafa jaadu. ndax su ma jugee ñoom la. xam nga bu baax jaxal kese moom mënul dem mënul dem sans ñu koy ak sans supporter yooyu noonu di mo waa Mofa waa Mafia ak Diop waa Pesso waa Télimane Diar fu mu dëkk sama kër yaay ma leen di sant waa Yëmbal waa Guy ga ñëpp may bégee ñëpp di bégee xale yu jigéen comme ñun caatu baaw jax yow ma koy sant Tafa Sall aw sa fay Tafa Sall aw sa fay di la ñaanal jàmm saa su ne di la bégee lu bëri doole ñu avancé tuuti ah da ngay football football mu ngi seetaan bëri su ma seetaanee football Sénégal la football. équipe nationale Sénégal. kese léegi da nga may limal juróomi joueur yoo xam ne mës nañu sol may équipe nationale Sénégal. mës nañu koo sol avant. am na jaar nañu équipe nationale Sénégal. Salif Diao. Salif Diao. Fadiga. Aliou Fadiga. Ferdinand Coly. Ferdinand Coly. Aliou Cissé. Aliou Cissé. El Hadj Diouf. El Hadj Diouf. cinq joueurs. yow da ngaa waane nga delloo ma 2002 boo yow loo xam ci génération 2002. 2002 boobu noonu ba mu koy seetaan maa ngi nekk lu ndaw. nekk xale bu ndaw. maa ngi Casamance. boobu suñu kër amoon téléphone suñu kër si ginnaaw. Mhm. benn kër boobu noonu moom amoon a aduna wërngël këpp sa joueur yi mag wala joueur yi ndaw yeeg yu mag yeeg yëpp waaw mën naa ne Vito fii la dëkk sant Vito fu mu toj kooku Barcelone la nekk wala Real Madrid wala fii nawetaan lay ban ban ay ASC fii ne sant bi la nekk ASC sant bi Vito moy sa joueur préféré aduna wërngël këpp ah, am na ñeneen ak ñeneen non non benn joueur benn moo tax ma la Vito Vito moy sa joueur euh ñu avancer euh ben instant dama naan mbër a euh, dañuy avancer tuuti ah dugg ci euh, beneen question dama naan boo nga liggéey tekki euh, dal ci am alal ju bari lan nga ciy njëkk def. nga liggéey tekki am alal ju bari. waaw ah. temps tekki rek am alal ju bari lan nga ciy njëkk def. mosu njëkk a def waaw ah. jaabale samay ñaar te yàlla na ko yàlla may sama papa génn àdduna bu mu génn àdduna ma am dara. un an un an sama yaay laa ak samay mag. tant tamit génn àdduna di la ñaan di la ñaan yàlla yàlla na yàlla a sama ñaari waajur ba di jàppale ñu yoon saa bu xëyoon tekki dal ci amaram yu bari loolu nga ci njëkk a def su ma tekki incha allah te damay ma koy may ah. te dama koy am naa gëm-gëm dinaa jàppale Euh, mbër nga xëy benn jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jële ko fi loo fiy jëlee. loo tere ñu jëlee ko fi. waaw ah. lu ma fiy doole di néew néew doole rek jaay doole ñuy jaay doole. neexul la ko kuy jaay doole boo boo sañoon lépp ñu teg ko ci yoon. kenn du jaay doole sa morom. xale nga mais wax fi wax na on avance un peu mais benn sens dama naan mbër bi nga juddoo ba tey ji ma wax ak yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak jour boobu lan nga dund. jour a neex ah, nga dund jour boobu. jour xam ne da nga bég da nga kontaan ba xam ne tey kontaan. Ah, ah, jox ma ci benn Magal lan nga woon lan moo xewoon te ko ci benn Magal Touba ma dem Magal Touba kër Borom Daar Borom Daar ak Cheikh Moussa Borom Daar bëri a ma toog laa toog di man lu ma joola yomb na mais jour boobu nag damaa toog di jël borom daara fu ma gis sama xol lay fees sama kontaan di ko ñaan yàlla euh, benn instant ñu avancé mais dama naan mbër ban jour moo la gën a métti ci àdduna ak jour boobu lan nga dund gën a métti si àdduna musiba xam ne da nga am lu la métti loolu la xëri lool lool lool lool. muy sama combat ma jom ba ma daanu métti na ma bi. nga daanoo da ngaa yëg naqar boo xam ne mosoo ko yëg. sama combat ba ma daanoo. tur naa ah. oto ba fii. Oh. ba kër gi ba fii sax am mais defet defet defet mooy moom. ñu avancé un peu mais mbër dama naan euh, mbër yi nekk ci arène bi mbër yi nekk au sommet ténor yi. kan nga ciy rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante nga war a bëreeg nit. waaw mooy sant nag Abdou Séréer Abdou Séréer borom VIP. mu koy sant bu baax a baax di sant Cheikh Faye sama patron la moom mooy jàngal ma leen seen ay ñoom Cheikh Ndao mm-hmm. suma xeeroo ñoom ñëpp ay teew ma leen seen mu doy yëpp di leen béggee lu bëri doole ñoom ñëpp ay Cheikh Ndao Cheikh Titi Cheikh Faye ak ma leen seen mu doy ñi nga xam ne damay am combat ñoom ñëpp ñu baax seen def ma leen siyaar bu baax a baax mm-hmm. siyaar amul tamit di ko béggee daam kon bu koy question bi mën nga cee bu ñëwee ba fin bi nga gërëm sant gërëm ah, question bi mën question bi daal kon daal fàtte nga question bi ma ne ténor yi nekk au sommet kan nga ciy rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante nga war a bëreeg moom. laa ciy rêvé. ténor yi ba ñu nekk ca kaw a kaw ca kaw. ban mbër moo ci koo xam ne buy bëree da ngay jëneer un jour arbitre sifflé génn seen diggante nga war a bëreeg ah, ah. da bëgg a bëreeg Modou Lo. da yàlla mu mu ko yàlla def na. mënu ko yàlla def ah, na. defe naa

tey le premier épisode lan ngay tàggatu. waaw comme ma la waxoon sànq di sant képp kuy bëggee ba la di sant xale yu jigéen ñi nga xam ne su ma leen combat ak ñu bàyyi sant ku mel ni Dio ñoom Dari waaw ñoom ñëpp ma leen di bëggee di leen ku mel ni Ndiaye Dip ma lay sant bu baax a baax di sant sama yaay Mariama di Diagne. tamit di sant Dourou Dourou gu jaar sama mari sama lépp la ngay sant am na fayam di sant képp kuy bëggee Baaba Jaxaar waxoon naa la maman Taaba ma li ma laat la maman Taaba ku mel Aliou Seye waxoon naa la Saloum sama tool la am fayam baare bu mag am fayam baare ma ngay sant bu baax ma may ma may booy ba nii di ko sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm ak danaa lu bëgg ñoom xam wax ak sama adversaire benn seeg. benn seeg du ñàkk sax ma dem seeti ko. du ñàkk ma dem seeti ko ne ko sa waay. Ah. di sant sama benn boy yaa ngi yaa ngi resté na bu baax a baax. sama boy la sama xarit la sama xarit la incha allah rek jaajëf. waaw mais di leen wax juste que ne sama gars yi c'était avec euh, Baba Diakhal Diakhal numéro 2 bu Tali Karo bu équilibre Jali Ba Mathiol. moom lañ ñëwoon seet si mbër maa ngi ah bëggatu moom mu sumeeku taxaw ci géew ñu ne kii gàlla mais mu sumeekoo taxaw ci géew nañ ne Baba Jaxal a ngi ne le kii mooy jaxal numéro 2 di leen jox dig daje ba beneen yoon ziar ziarat yaa ngeen sama gars yi